aw législative yi nga xam ne ñu ngi ko amal 31 juillet 2022 treizième législature bi dal di dem yóbbaale nag ay fraskan à 27 on a réussi à bloquer pour 30 minutes cette assemblée par des arguments pero hein. quatorzième législature bi dal di teew. parce que maa bi nag toll ci quatre-vingt-deux députés yoo xam ne ci coalition présidentielle bi lañu bokk yeneen quatre-vingts yi nag jugee ci intercoalition bi nga xam ni moo boole Yewwi ak wàllu Sénégal ñetti chaise yu des nag Thierno Alassane Sall Pape Djibril Fall ak Pape Diop daal di koy occupé su fekkee nag ñaar yu njëkk yi dañoo des doon ay non alignés ku mujj ki di njiitu bokk gis-gis moom dafa fekki mouvance présidentielle bi ca jamono jooje ki ne tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré dal di jóge ci boobu lépp coalition. président Macky février 2024 ci lay noppi. ab cohabitation nag dal di judd foofe ca pencum ndaw réew ma ci diggante ku gi ak nguur gi waaye Yewwi ak wàllu nag tàmbali féewaloo nag ca marathon budgétaire ba ba ci motion de censure bi nga xam ne ay député PDS dañoo beddeeku. c'est pourquoi monsieur le ministre nous nous avons pris nos responsabilités par rapport à la situation. ci séance yi nag yenn saa yi waxtaan wi am solo lool. il est grand temps de changer d'école et de changer de contenu. yenn saay waxtaan wi doy waar ba mu jéggi dayoo. ministre de l'intérieur bi fen rek fen rek. daañu dem sax ba daal di bloquer liggéey bi. dañuy dem sax ba faf songante. ñaari député puri yi di ma Massata Samb ak Mamadou Niang yoon dal di leen teg loxo ñu tëdd kaso lu toll ci juróom benn weer député yi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi fayeku gën gi néew un million trois cent mille francs ci sunu koppaar ñoom nag dañoo fas ne dem vacances le premier juillet bi ñu dëgmal nara dellu si nag ci weeru septembre ko defee nag ñu xaarandi ginnaaw présidentielle 2024 ana nan la wanante di mujjee ki gëtam